di sant yàlla suñu borom ci koor gi ñu tàmbalee rek eh, di ñaan niñ ko tàmbalee yàlla noonu suñu borom may ak wér ak tal te fekk ko ba mu jeex tàkk ci jàmm ak salaam eh, yàlla defal nu ci ngërëm lu yaato yaatu ba ñun ñëpp jullit yi yàlla defal nu xéwal gu yaatu ba niñ ko bëggee nu amee ko noonu waaye njaay mi moom wax dëgg yàlla eh, ci koor gi moom tàmbalee gu la mel na mu war a mel dëgg-dëgg Euh, koor gi bu dee sunu ñun ñi di jaay ay wàllu sport ak yooyu moom wax dëgg yàlla xam naa koor gi dina du du ko taxa a euh, doxagun ci première yi. xam naa dernière yi daal mooy li nga xam ne euh, la ñuy am yaakaar ci mu mu doxee noonu waaye lu dul loolu moom fi mu ne nii moom daanaka ay fortaatu la rek daanaka wàllu lekk daal defe naa moo gën a dox fi mu toll nii si jamono ji waaye wax dëgg yàlla fi ne nii moom man yëgaguma méttaay méttaay koor gi ndax tàmm nañ ko daal moo tax tàmm nañ ko. waaye bu dee ñi nga xam ne tàmmuñu ko maam liggéey bi day métti ñoom day métti ñoom day day diis lool ñoom waaye fi ñu toll nii nag moom métteegul moom métte ko daal yëgaguma métte ay waaw koor gi moom premier jour bi moom affaire bi waxagul dara de dëkk bi moom day tegaaral benn instant tamit mënu mënuñoo liggéey ndax AFP lu ñu liggéey ñu jël ko lu ñu liggéey ñu mu ko fi ñu toll nii ñun mënatuñoo liggéey ñu ko vraiment liggéey bi moom instant bi ñu neexul daal fii ay 10 jours yooyu liggéey bi si lay commencé neex mais instant bi nii moom da rek waaw début bi la quoi ta parce que gars yi duñu miinagul bi pour génn dañuy sonn bu ñu tëdd ngoon lañu génnaat bi ñu toll nii du ko jàpp 5 heures ba guddi gi la dëkk bi di neex mais instant bi nii nii moom day xaw a dëgër waaw non jàppagu ma ñun ay ay champion lañ di ñaan yàlla julli si ñu ñëw dugg si bisimilah rahmaani rahim génn si alhamdulilah rabbil alamin waaw moment bi day day tane day tane sa bu ñu ba fin fin ñu moment bi ñuy dugg si euh, kii bi quoi ay fin koor bi waaw si lay xaw a liggéey bi xaw a jàpp commencé waat dellu si waat en temps normal quoi. ma da ngay gérer quoi xam ñun ñemee da nga xiif ak liggéey bi noonu xam nga rek yaa ma xamal métti na mais da nga koy gérer quoi alhamdulilah jaamu yàlla tamit ñu ñaan ci da ciy def lu ñu war rek. soo ko képp laa am. am na ko doxul dara. mais bilaay gi ñàkk su lay doxul ah doxul de moom mi ngi sama socc yaa ne ma teg ne. parce que xam nga yaakaar xam ne loolu la. donc mën naa mu ñëw fii ak xaar. du jar moom. non incha bu xaas boole ci te Sam du jar. koor gi. xanaa sant yàlla jëli jënd bi. ñu ñaan yàlla ñu yeggale ko jàmm. commencé ko jàmm yeggale ko jàmm. ñu ñaan wér ak wér ak fekk ak tal. ki dajal solo laay